jërëjëf mbokk yi ñu seetaan wasaare làmb mbokk yi ti nañ leen am kontaan ak mbégte bu baax a baax a baax boo xoolee école bii ñu janoon mooy école unité ñu ngi fii ci parcelle Assainies unité 20 kër gi ñuy dugg si benn champion moo fi dëkk ñu gën ko xam ci Tapha mbër tey moom la ñu seet si li tax ñu seet ko nag seetsi bi dafa doon loo xamante ne lu spécial la parce que nekk na xale boo xamante ni donte mbër mu ndaw la mais mu ngi dajale ay daqaaram ma ngay dajale ay déemam lépp loo xamante ni am na ko ak ay njeganaaleem ngir yóbbu ko li nga xamante ni mooy daara yi mbokk yi bu ñu waxee daara nag xel dina dem ci lu baree bare ñuy ñaanal doomu Baye ñas boobu nga xamante ni moo fi génn àdduna barki démb muy Sadi Say euh, Saydiya euh, Mariama Niass euh, mu doon koo xamante ne ndey daara la woon ñu koy ñaanal yàlla suñ boroom yokk leeram tax ñu ci barkeem ndax ñu mel noonu tey moom la Sénégal soxla tey nag Tapha Mbeur nekk na koo xamante ni day delloo njukkal daara ba waral mu dajale ay lu bëree bëri loo xamante ni daara da ko yittewoo ngir yóbbu ko ci daara yi loolu tey la ñu bëgg ñëw dégtal ko mbokk internet yi nga xamante ni wasaare lamb rek ngeen safoo di ko seetaan dañuy dugg ci biir xool Tapha mbër xool ay mbokkam xool nan lay waajee ak lan lay yóbbul daara yi bismillah kàggu والقلم وما يسترون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لعجرا غير ممنون وإنك لألا خلق عظيم فستبشرون ويبشرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تدع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تدع كل هلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير مؤتد نسيم عتل بعد ذلك زنيم صدق الله العظيم tey ñu ngi fii ci intervent ànd fekk benn champion boo xamante ne nii dañ naan champion xale yi la foo ko fekk day kaf di waaye tey def na loo xamante ne ni xel njortul woon ni Amdy Moustapha xalaat na ko wala xelam ma nga ca waaye bu ñu dee am di Moustapha xam ne bu jëmee ci daara war na ñu gis nag tey mu ñëw ci daara yi dajale li mu am ak ñu mu àndal ñëw fi pour joxe ko bu ñu ko laajee nag xëy na dinañ wax lu tax mu sabab li am di Moustapha ñu ngi lay siyaar. waaw maa leen di nuyu di nuyu waa àdduna yëpp yi ñuy seetaan di nuyu internet yi di nuyu sama mbokk yi nga xam te ni mooy journaliste yi nga xam ne ñoom lañ bokkal liggéey bi yëpp di nuyu waa Sénégal di nuyu sama xarit yi nga xam ne ñoo ngeen fekk kii di sama président fans club yaakaar naa ne lépp moom la Euh, Mandiaye Top Dabaax borom unité 18 Pape euh, nu mu tëddati Amadou Diop Zim Awa Gueye mi ngi ci biti ak faama Fama ñooñu ay jigéen lañ mais lii tey boo ko gisee dañu gis ni saison bi mu ngi bëgg a tijji mbër yi dañ daan def bu saison di tijji yaa leen di dégg xam nga ñii di def ay tandibéer ñii di def ay programme yoo xam ne lépp ay saayir la ñun tey ñu toog sama président fans club mi ngi ni toog Maurice daanaka chrétien la xam nga mais ñun jullit lañ mais ñoo bokk lépp mu ne ma pourquoi ñu def social tey saison bi mi ngi tëjji pourquoi pas ñu def social ñu xool li nga xam ne am nañ ko sedd baa ngi nii ñu ngi décembre ñu xool ay yére yoo xam ne seddaay la booy taalibe yi fajar gi ñuy xëy di génn ak yooyu ak quelques denrées alimentaire ñu yóbbul leen ko loolu dina gën ma ne ko lii kat idée bu baax la ñu waxtaan si ak suñuy kilifa ku su mel ni sama prési us buggul may jaar si turam mu xalaat waxtaan si ak staff bi yëpp ñëpp ne lii idée bu rafet la te buñ ko defee lu gën la moo gën ñuy def leneen te dañuy tere rassemblement ñu daal xalaat loolu taxaw ci Maurice tamit appuyé ma si bu baax muy sama président fans club sonn si dox si tànk yëpp moo ko dox moo waral tey lii nii ñu ñëw fii. <laughs> kon daal Moustapha moo jiite tur bi waaye ñi ci ginnaaw ma tax moom doole bi. waaw man tey dama ne ci kanam mais am na ñoo xam ne ñoo nekk sama ginnaaw. Mhm. te ñu tey yaakaar naa coono bi yëpp ñoo koy dox. man tey dama leen di appuyer di ànd ak ñoom xam nga di dox ak ñoom te ñun ay jeunes lañ. Mhm. mun nañu gis ci leneen mais tey lii ñu ñu gis ku ñu si gis war nañu gis ku xam suñuy famille xam suma ginnaaw xam ne man ku ma gis ci daara war nga ma fa gis mais damay santaat yàlla rek bi nga xam te ne ñun tey ay xale lañ ñu am idée yu mel nii di ñaan yàlla luñ ci def ren balaa déwén yàlla nañ mën lu ko raw luñ fi def ren rek ak fépp fuñ ci toll ren bu déwénee yàlla nañ mën lu ko raw incha allah lu tax nga ciblé daara bi jëm si fi waaw daara bii nii nii ma ñëw tey daa am ñoo xam ne ay ay ay ay ndongo lañu woon fii tey ay mag lañ ñenn ñi ñibbi nañ ñenn ñi ñu ngi liggéey tey man ak ñoom ñoo fawandoo fii man dama nekkoon xale di ñëw di lekkandoo ak ñoom am na man sama yaay amoon na koo xam ne sama yaay moo nekkoon yaayu daaraam saa bu ñëwee day teg potam foofu bu añ jotee dañuy bu ñuy tibb kër gi dañ koy tibbal defar ba mu rafet mu ñëw jël yóbbu kon tey man lu ma def fii war naa ko fi mën a def su may def open press daara ji dañuy ñëw seen xale yi su ma lu may dugg dañ koy dañ ciy dugg kon tey moo tax ma ciblé fii ne lépp lu may def fii laa koy njëkkee lépp lu ma am fii laa koy njëkkee ndax seen i xale am na si ñoom maak ñoom ñoo defandoo enfance ñuy toog di añandoo ci seeni bool ci seen pot di ànd di fubal ci terrain akapes bi di fubal ci terrain violence bi kon tey lu ma def moo tax ma jiitee waat ko fii waaw ñu jublu ci sëriñu daara bi comme moom moom nga fekk si mu jiite xale yi kilifa gi ñu ngi leen nuyu. ñoo ngi leen di fay. ginnaaw biñ la nuyoo euh, lan ngay wax ci li nga xamante ni Amdy Moustapha mi xalaat na ko ñëw ak li mu seede ci daara bi ni ngeen def moom. Euh, ñu ngi rafetlu ñëwam fii ndax kilifa gi daa génne waaye Amdy mii de ñu nag moom yàgg nañ comme li mu wax du tey ñu xamanteeg moom boobu man mii xale bu ndaw laa damay jël pot di dem di yelwaani boobu lañ xamanteeg moom ba ñu yegti fii ñu yegti fii tey moom bu ñëw ñëwam fii ñun bettuñu waaw ñëwan fii ñun bettuñu aussi xale yi kontaan nañ ci moom parce que xëy na nii dafa doog a ñëw indi mbooloo mi fii waaye moom tout le temps day ñëw ci daara ji moom ci daara ji la bokk xale yëpp a ko xam bi ñuy jàngi xale yëpp a koy ñaanal su amee fii combat xale yëpp a koy ñaanal waaw kon daal lii faa def dafa mel ni mel na ni fa mu doon jàngee mën nañoo bàyyi xel ni fii bokkoon na ci ndax dafa daan ñoo di ànd ak ndongo di waxtaan. waaw dafa doon ñëw fii di waxtaan ak ndongo yi moom daal ci daara ji la bokk. ndongo yi dañuy dem ba ci seen kër lañ doon yóbbu bool dañuy yóbbu bool yi ci koñ bi yëpp ñëw indi ci kër gi fii dajale fii bool yi añ fii jël seen àll yi jàng noonu lañ xamanteeg moom ba ñu yegg ci fii ñu yegg ci tey. lan nga koy ñaanal ak lan nga koy ñaax. tey moom ñun koy liñ koy ñaanal mooy fi mu bëgg a jëm yàlla na ko fa yàlla yóbbu waaw. lan koy ñaax xalaat bi te ñu jëm koy ñaax moom mooy idée bu ma jël fii idée bu rafet la ndax am na ñu ko ëpp moyen tey fii defuñ lii mu def nii. moom lii mu def nii boroom xel xol rek moo ko mën a def waaw waaw ñu kontaan ci moom li mu bàyyi xel ci taalibe yi ndax daara yi dañ leen war a bàyyi xel waaw. ñu am di dégg nañu kàddu yu yooyu donte am na yeneen jotaay yu ñu war a demaat xanaa ñu tënk rek. waaw tey lépp lu ñuy tënkaat damaa bëgg nga jox Maurice. mi nga xam te ne tey lépp lu ma dugg moom moo may ànd ak man. daanaka ñoo defandoo xale ba nekk mag lu na daj na ko ngir man kii jaay joxe na joxe na fayu école pour sama làmb jaay na ordinateur am pour sama làmb su may fan sama sama combat bañ ne ko ba lu nit soxla naan dem leen seeti Maurice kon tey kii nii munul munul munul munu ma wax loo xam ne ni te moom du wax moom laa bëgg ngeen jox ko parce que idée bi yëpp daanaka moom Maurice la tudd daanaka suñu mbokk chrétien la mais tey idée bi daanaka lépp ci moom la jóge <laughs> waaw kon mbokk yi dafa mel nii Maurice dégg nañu kàddu yu Tafa wax. social bi ba tax nga ñeme ko jiite ko ba Tafa mun koo seede ban yëg-yëg ak fan nga xalaatee loolu jublu ci taalibe yi. waaw ñun buñ ko xalaatee yaakaar naa dañ ko war a xalaat ndax bu dul dara dañoo dëkk ak ñoom ñu vingt lañu dëkk fii la ñu màggee fii la ñu foowee comme ni mu ko waxee rek taalibe yi dañoo yàgg football ak ñoom foowandoo ak ñoom saa ñu tàkkalikoo daa fekk ñoom ñu dem jàngi mais bu dul loolu ñoo doon toog ak taalibe yi ba bi fépp fii lañ ko doon defee ñoom kon tey ñun social yaakaar naa fan club da cee yàgg parce que la bu muy door a sos sax ci ay set setal la sosoo première activité bu ñu njëkk def set setal la woon comme pare ci set setal bi ci lañ dugg ci yeneen mais ci social moom duñ ci génn ndax Tapha moom boo fooyee ak ay xale yu néew di doole yaakaar naa boo leen fàttee da ngay te Tapha mu mënta demee muy tay muy ëllëg te yàlla na ko yàlla may mu dem ba téye làmb ji ba doon roi des arènes waaye du mës a fàtte ñii du fàtte képp ku néew doole ndax ci lañ màggee ci lañ yaroo kon doo am astuut bëgg leen bàyyi te doo leen waaw jikko boobu moom ñu ñuy ànd ak moom duñ ko ci seetaan waaw. bu ñu nee mbër day war ngay ànd ak moom depuis boobu ba léegi lan nga ci mën a waaw loolu kàddu yooyu dañ koy dégg rek mais mbër ki nitam mbër nit la rek balaa muy doon mbër te jikko yi amuñu kii ñoo màggandoo ñoo foowandoo ci wax yooyu ñu bu ñu ko déggee sax duñ ci bàyyi xel ndax xam nañ ko xam nañ nu mel xam nañ jikkoom foo bi ngeen di gis si moom caméra ku tiim mu foore noonu la mel nga dem seen kër nga toog feneen fu mu ta fekk nii lay def foog ñëpp muy xale yi ak yeneen ak yeneen. loolu moo tax kon lu gars yi di wax ci mbër ñu loolu duñ ko bàyyee xel sax ñu ne moom démb la tey te suba lay doon incha allah. lan nga koy ñaax. waaw yokk liggéey yokk liggéey rek gën a jàpp ndax moom lii bu mu ciy dugg dama toog nag saa lii boo ci bëggee dugg ñaaree am soo nga doon champion ñu ànd ak yow mais boo fas yéenewul doon champion wax ñu ñu toog ñu xool leneen lu ñu def ndax daa bàyyi jàng mbaay lépp pour làmb loolu laa ko wax ci làmb bu dee ciy dugg doon champion wala ñu bàyyi. te ci tànk yooyu la nekk loolu koy ñaanal mu gën a yokk entraînement yi rek ba si kanam ndax li si kanam mooy dàq incha allah. tey sant yàlla di santaat xam nga waa daara ji santaat ndongo yi fi nekk ndax ñoom ñoom lu mu wax ci ma ñoom rek dama am lu ma bàyyi ndax maak ñoom démb la si wax na ko ñii dañ foowandoo màggandoo di leen ñaanal rek ñoom tamit ñu ñaanal ñu. lépp lu ñu mën ren balaa déwén nañ mën lu ko raw te lépp lu ñu am dinaa fa yéene bokk ko ak ñoom ndax maak ngi ñoom ñoo fawandoo tey kon nongu bu fi ñëwaat doon gan sax dama lay boole ci ñi nga xam ni ne maa ñoom démb la woon maa ñaan yàlla rek lépp gën a continuer am na beneen daara bu ne ci kanam foofu lañ bëgg a dem yàlla def ñu defaat fa comme noonu incha allah jaajëf waaw waaw waa tey sant yàlla bii mooy première édition bii nii mooy première édition parce que tey yàlla def na ñu ngi commencé di bëre instant bi am na fu ñu toll ci làmb ñu toog xalaat idée bu mel nii mais bi mooy première édition ñu ciy sant yàlla gis ni mu demee di ñaan yàlla chaque année ñu koy def te chaque année luñ mën ci at bi passé bi ci topp dañuy def lu ko raw parce que mooy suñu yéene mooy suñu objectif waaw lii bii mooy première édition beneen édition ñu ciy xaar képp ko xam ne am nga yéene def te yàlla tax parce que lii ñuy def ñun xooluñu ci dara dañ koy def te yàlla tax parce que ñii ñun ak ñoom la woon te ñun dañoo xam li ci daara parce que ñun ñii fanaan nanoo ak ñoom parce que ñoom fii la ñuy tëdd si biti man ma naan dem fenn wala ma dem mbapat sax mooy commencé di bëre mbapat booy dañ ma xamoon su ma jógee mbapat fii laay toog ak ñoom ba fajar ñoo ci bëri fii lañ daan tëdd ci biti kon man mun naa ne fanaan noonu ak ñoom lekk naa noonu ak ñoom def noonu naa ak ñoom ñëpp kon lépp lu mu am dinaa ko bokk ak ñoom bi mooy première édition yàlla nañ dem ba 100 édition incha allah yàlla baax na